salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di ziar di leen nuyu di leen dalal fii ci bërëb bi nga xam ne mooy bërëb bu tedd nga xam ne fi la Serigne Touba mujje mooy fii ngeen ñëw tey bërëb bi nag euh, néeg bii ngeen di jàndoon mooy néeg bi sëñ Touba dëkkoon mm, fii la sëñ bi wàcc liggéey itam waaye néeg bi itam moom la ko maam Cheikh Rahma Fall defaloon fii ci kër gi nga xam ne wax na ne bi fi sëñ bi nekk ci kër gi booba lu toll ci juróom fukki néeg amoon na fi yoo xam ne moo newoon ci biir kër gi waaye juróom fukki néeg yi dañuy wax ne sëñ bi daf ko tànnaloon daf euh, dafa dafa wutlu woon ay lal yoo xam ne daf koo defoon ci néeg yooyu daan ci dugal yi mu daan bind moom la daan teg ci kaw lal yooyu téere alxuraan xasaayit ak hadiis Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la daan teg ci kaw yooyu ci néeg yooyu néeg bi nag la ñu waxoon ne moom la tànnaloon boppam def ko néegu boppam nga xam ne fi la féete woon daana fi dugg xel ba daana defee lépp wax na ne tam maam Cheikh Ibra moo ko fi takkaloon néeg bi boobu fii ngeen di gis itam moom mu mujjoon ci kër gi boobu boobu bunt kër yi soowu la féete ak ci wet yi waaye boobu fii amul woon ay bunt boobu moo gën a sori ci biir kër gi fii itam fi la sëñ bi wàcce liggéey ci néeg bi ngeen di gis fi sëñ bi wàcce liggéey ni wax ne keroog bi fi sëñ Modou Moustapha ñëwee bi fi xew-xew bi amee sëñ Maxtaar si la bëgg nekk moom la fekk sëñ si la moom wax nañ ne euh, moom moo daan mujj ci sëriñ bi wax nañ ne keroog moo mujj itam ndax wax nañ ne moom moo doon jot li sëñ bi keroog yi soxla yëpp yi muy fatu moo li yëpp yi mu mu noppee nag sëñ bi ne ko mën ngaa dem ba suba bi fi sëñ Modou moo tax bi sëñ Modou Moustapha ñëwee wax nañ ne moom la ko laaj na ko foo ko mujj a dégg mu yëngu waaw sëñ Maxtaar si la ànd ak sëñ Modou Moustapha sëñ Bachirou sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana ak ku ñuy wax sëñ Abdourahmane Tànnexiw am naar la woon wax na ne daana noddal sëñ bi fii ci Njaaréem ak ci gànnaar ñoom la àndal ci néeg bi moo leen fii laa ko mujj dégg mu yëngu wax na nag sëñ Maxtaar si la moom daf leen fee bàyyi daal di dem ndax wax na ne xolam attun du ko ndax booba xamale xew ba noppi sëñ Modou Moustapha nag moo taxaw ci bunt bi yëglu ñetti yoon bi mu yëgloo ñetti yoon nag kenn fa yëgu wax na ne ci la soog a dugg ci biir néeg bi bi mu duggee wax na ne mi ngi fekk sëñ bi mu tëdd ci ak basan romb jaan jël xasida gi mujj bind teg ci kaw muy xaatimatu mun aajaati mooy xasida gi ngeen gis sama ginnaaw moom la mu fekk mu mu teg ko ci ci kawam euh, wax na itam bi ñu ñëwee fekkoon nañ tam mu fàggul boppam liñ ko waroon a waajale lépp ba bàyyi ko ci biir néeg bi mm-hmm. euh, sëñ mu Lamine Diop daal sax wax ne sax fekkoon nañ ko mu set waaye dañ ko doon dolliwaatal mm-hmm. ndax loolu sunna la mënut a ñàkk moom moo ko doon waajal sëñ Mamadou Lamine Diop Dagana sëñ Cheikh Xarijang di jaay sëñ Basiru ak ku ñuy wax sëñ Abdourahmane Tànn fi wax nañ ne ñoom ñoo ko doon waajale fii ci biir néeg bi ñu seen ko yóbbu Tuubaa waaw am na ay gaal yoo xam itam juróom-ñaari gaal la yoo xam ne bokkoon na ci bagage sëñ bi yu mu yóbbu woon ci géej gi yooyu ay téere ma ci nekk yi mu daan yor moo ne ci biir gaal yooyu mm-hmm. ak basan romb jaan go nga xam ne fi la ko sëñ munu saa fekkoon mm-hmm. basan googu it mi ngi fi ci biir ba mi ngi ci biir néeg bi mooy tam mm-hmm. euh, néeg bi tam Cheikh Issa Dieng moom moo ko tabax ginnaaw sëñ Tuubaa moo ko yeesalaat am na waaw waaw am na benn bunt bu ne ci biir néeg bi sax boo xam ne wax nañ ne keroog bi sëñ bi jógee ci xay gi ci biti ci bunt boobu la jaar dugg ci biir néeg bi bunt boobu la ñuy wax ne sëñ bi dafa wax ne bunt bi ak Kaaba ak Màkka gi ñoo janloo loolu ñu ngi ko jëlee ci mag ñi fi newoon mhm. ku mel ne sëñ Moussa am sëñ Abdou Khadir mos na fee ñëw mhm. bi taxawee ci bunt bi wax na ko mhm. sëñ Abdou Samit Soy bi mu fi mujjee it keroog taxaw na ci bunt boobu wax loolu ne sëñ bi dafa wax ne bunt bi ak Kaaba ak Màkka gi ñoo janloo bunt baa ngi ci biir bunt bi nga xam ne dinañ ko wan muy ci biir néeg bi ak ak juróom-ñaari gaal yi mu leen di wax. Euh, fii itam kees gi itam mooy kees gi sëñ bi fi wax na ne mooy kees gi sëñ bi féete woon. moo moo mujjoon ci kër gi booba. waaw xay gi ci biti it xam mooy ngeen ne di ngeen ko jël. Mm-hmm. xay googu itam sëñ bi fi jëmbatoon. ci ci loxol boppam ci loxol boppam waaw mooy waaw mooy gi ci bunt bi dañ bee ko jëmbatoon ci loxol boppam mm-hmm. wax na ne keroog moo moo gasal boppam mm, jëmbatal ko boppam daan ko roose ak satalaam waaw dégg naa sëñ Abdou Samad Sow bu wax ne fu waxtu roose yi mu ko daan roose fu masaan jot mhm. day ñëw roose la ko boppam mhm. doora delluwaat ci mu ba xay gi màgg mhm. wax na itam mas na fee toog ak mag ñi daat fi woolu ñaari Abdou Samad kenn gi sëñ Omar Boto la ñu waxee mooy woy juróom kenn gi sëñ ma jëmm la mooy woy juróom bi mu leen wooloo ñaari Abdou Samad yooyu bi bi bi ñu bi daal di wax ne ñaari Abdou Samad yi di ak xay yi ñoom may xamal ne gàttatuma aw fan ndax ñaari Abdou Samad yi maa yar seeni baay ba dencal leen ban am leen ci ba léegi tey ñoom ñu mën a wutu seeni baay kon loolu nga xamal ne gàttatuma aw fan mu ne xay gi tam maa ko defal sama bopp di ko roseek sama sat la ba màgg sama kanam ba ma mën a toog ci kër kon loolu tam ba lay xamal ne gàttatuma aw fan wax nañ ne loolu li mu si jublu woon ak tàggatu ak jublu la woon waaw wax na itam ne euh, mas na taxaw dafa wax ne foofu la ko meññetum àjjana njëkk a fekk. Mm-hmm. loolu moom ni ko jëlee maa ngi ko dégg ci sëñ Cheikh Sarr moom sëñ Mbaye moom sëñ Touba ko yar. Mm-hmm. nee na keroog bi sëñ Touba di wax loolu moom mi ngi toog. fekk na ko mook sëñ Mbaye Sarr. nee la waaw sëñ Cheikh Sarr waaw nee na keroog ci la sëñ Mbaye Sarr su mu woon yëre bi mu sol. Mm-hmm. wadde ko xay gi ndax loolu sëñ Touba wax. mooy mooy mooy mooy mooy foofu ci xay gi foofu itam fa la mujj a toog mm-hmm. ci yor yoru altine mm-hmm. dañu naan wax ne foofu la sëñ bi mujj a toog ci yor yoru altine mm-hmm. bi mu fi bàyyi la jaar ci bunt bi ci biir néeg ba lañ ne wax dugg ci biir néeg bi wax wax nañ ne bis boobu sax ci la ci la wàcc liggéey ci ci bisu altine boobu keroog la lañ ko mujj a gis waaw suuf si itam wax nañ ci ay wax ne moom wax ne ne bépp suuf bu ne yor na darajee kaamil alxuraan mooy waaw fii mooy mooy waaw mooy suuf si ne na ne pepp bu ci ne hmm. yor na darajee kaamil alxuraan hmm. wax nañ ne bu masaan di jàpp sax daaw ko tiimale ci suuf si ndax war a maal ko waaw ndax am na benn jàppukaay boo xam ne jomb na bi ngeen demee di ngeen ko gis ci biir waaw ci la sëñ bi daan tiimale njàpp hmm. mi ndax war maal war maal suuf si waaw kon daal yaakaar naa ci gàttal rek loolu mooy mooy mooy mooy mooy mooy ñu ci mën a tënk xëy na waaw ak juróom yi mu def njaaram it. waaw lépp fii la ko def ci néeg fukki at ak juróom yi mu ko dëkk. fii la ko dëkk waaw fukki at juróom ndax 1912 dafa ñëw. 27 mhm. yëpp fi la ko dëkk. Mhm. ci biir kër gi néeg bi nag moom la ñu waxoon ne moom la tànnal loolu maa ngi ko dégg ci sëñ Mbaye Ngiraan defe naa xam nga ko. sëñ Mbaye Ngiraan wax na ko fii kat ko. gën na koo leeral nee na sëñ bi. Mhm. néeg bi la tànn moo ko tànnaloon mbabam. nee sax sëñ Maam Mor jaara la ko ma sax ne ko néeg bi de moom laa am ci kër gi. moo fi sama néegu bopp yeneen néeg ci des comme li ma leen waxoon wax nañ ne ay lal la wuñ doon dugal ko ca daan ci teg téere alxuraan yi ak xasida yi daan bind ak si yonent bi sallallahu teg ci kaw lal yooyu bii rek la fi boo xam ne moom fi la féete woon diir bi li nekk njaareem yëpp néeg bi la ko féete wax nañ tam bu ma saan génn fii tam ca jàkk ja la daan waaw si daal mooy jàkk ji ci biir boobu daan jullee waaw moom jëmmu ne na ngeen fa dem waaw ah, xasida gi yi ngeen di gis mooy gi mujj bind mm-hmm. lii ah, moom mm-hmm. ko ci kaw gën nag mooy mooy xasida gi nii mm-hmm. gis moom la moom la fekk mu teg ko ci kaw moom la mujj bind ci loxoom mooy xaatimatu mun a jaati fi sëñ bi wàcce liggéey lii ngeen di gis mooy gaal yi nga xam ne yóbbuwoon na ko ci géej gi gaal yi yëpp suñu bi yóbbaale woon na ko lii ngeen di gis ci kaw mbindum mbindum loxoom la mhm. waaw moom sëñ bi bindal boppam basang ñoo leen wax moo ne ci biir néeg bi gaa ngi fii ngeen di gis ci weer bi ci suuf waaye doon koo muur mhm. foofu la sëñ bi wàcce liggéey fii moo tolloo wàcce liggéey ma waral ni ñu ko ni mhm. baare ko kon néeg bi la ko fi maam Cheikh Ibrahima Fall dafa lool waaw moo ne woon néegu néegu boppam booba nag néegu ñax la melutoon nii ndax wax na ne suñ moom bi mu ne kër gi amatoon ay ay tabax lépp néegu neex la woon waaw hmm. ah, Cheikh ginnaaw bi nag la ko Cheikh saa tabax hmm. Cheikh Issa Diène waaw hmm. ah, moom lay wax ne moo kaabak màkk gi ñoo janloo mooy bunt bii nii waaye ne moo kaabak màkk gi ñoo janloo bunt bi nag dénk yi newoon dañ koo tabaxaale ci biir bàyyi ko ci waaw waaw dénkee ci woon koo tabaxaale bàyyi ko ci biir di ko barkeeloo moo waral te mu nekk fi ba nag nii waaw kon loolu mooy mooy taarixu taarixu néeg ah, bi nga nekk ak juróom bi nekk njaar ko dëkk waaw ah, ba tax na moom moom wax ne lu fi lu fi waaye sàkku rek. Mm-hmm. suñu borom dina la ko defal ci néeg bi nii. waaw ah, comme muy néegu néegu néegu néegu barkeel di néegu tedd. Mm-hmm. Ah, yaakaar bi moom. waaw yaakaar naa moom. <laughs> dara waaw waaw waaw mu nga waaw. waaw kon loolu mën naa boo neexee mën naa jël bunt bi jëlaale jëlaale kii jëlaale. sëñ bee ko fi jëmbatal boppam. Mhm. ci loxol boppam. Mhm. wax na ne keroog bis boobu moo moo moo moo ko jëm moo gasal boppam dugal ko fi maam jëmbatal ko boppam. Mhm. daan ko roose ak sa laam. wax na itam su waxtu wi mu ko daan roose saa jotee rek. day ñëw roosal ko boppam delluwaat ci biir. delluwaat ci waaw fii itam euh, fi la woolu wat ñaari Abdou Samad yooyu. doon ci joxe misaal ñu wane ne yàggati wu fi. yàggati waaw ki moom kenn ki sañ amul ba doon wax mooy waajuram kenn ki sëñ. ma jëmm si la waaw mooy woy juróom keroog bi ñaari Abdou Samad yi ñëwee fii la sëñ bi ne ñaari Abdou Samad yi de ak xay gi ñoo may xamal ne mm-hmm. gàttatuma aw fan waaw ndax ñaari Abdou sama yi de ma yor seen i baay te mm-hmm. dencal leen mm-hmm. ba léegi tey ñu mën leen a wut kon loolu mooy xamal ne gàttatuma aw fan mu ne xëy gi maaw fi jëmbatal sama bopp di ko sama sata la sama kanam moo dem ma mën a toog ci kër gi fii itam la wax ne fi la ko fi ne ko njëkk a andile meññatum àjjana waaw nee ci waxee loolu sax sëñ Bay sax dafa yére bi mu soloon mm-hmm. wadde ko garab bi mm-hmm. eh, ngir war warmaal loolu seen bi wax mm-hmm. fii itam la mujj a toog wax nañ ne fii la mujj a toog ci yor yorub altine mhm. ba mu fi bàyyi ko nag la fatu ci ñëpp bii nii mhm. mooy bis bi ñu ko mujj a gisee jaar ci buntu boobu nga doon leeral ci buntu boobu ma leen doon wan waaw dugg ci biir mhm. a ci xay ji lay fukki at juróom yëpp moom daana ñëw ci xay yi ne bi wax nañ ne moom moom daawut waxtaan sax waaye waaraate yi waaw waaw ak ak ak yooyu fii la ko daan defee waaw waaw yooyu it daan daan daan daana ko def bi ndax sëñ Cheikh Sarr nee na mhm. am na bis fekk nañ ko fii mhm. ak mbooloo mi mhm. nee nag na keroog moom ak sëñ Mbaye Sarr ñoo ànd waaw sëñ Cheikh Sarr nee na keroog moom mi ngi yor sayu matt sëñ Mbaye Sarr yor këllu meew nee na keroog bi ñu ñëwee fii nu ko jébbale sëñ Touba jël sëñ Touba doon wax loolu man mel ni itam àjjana ko a xay moom garab bii moom suñ bee ko jëmbatal moo ko mooy mooy ngeen gis waaw mhm. ah, daana fi toog itam wax nañ ne tam fu fu tolloo fii la daan daan toog jublu xibla waaw ndax moom fu masaan toog lay jublu xibla waaw ah, kon suuf si itam moom laa leen wax ne mhm. nee na pepp ci nekk darajee kaamil alxuraan la yor si waaw mooy suuf si waaw mhm. kon loolu mooy taarixu béréb diggante taarixu ak ah. uh, jumaa ji daana génnee nii dem jumaa ji waaw jumaa xam nga moom nag wax ne ci jàkk ji ci jàkk ji ji wax nañ ne ñaar yoon la ci mos a julli a waaw ci li ma dégg neen ñaar yoon la ci mos a julli muy korité ak tabaski waaw julli in waaw julli in rek la ci mos a julli waaye julli farata yi moom jàkka jàkka jaa ci biir kër gi la daan boobu waaw boobu it kër gi gis boobu kër gi dafa wax nañ ne demoon na ba weesu tël tëli bi ngeen di yan waaw ginnaaw tëli bi waaw tëli daanaka kër gi demoon na ba jege jumaa ji waaw am ah, nañu wax sax daaray kaamil yi ngay gis ci biti mhm. ci biir kër gi la bokkoon waaw ah, waaye ginnaaw bi mu jógee nag mhm. lan ko lan ko lan ko sopp féete la mhm. buntu kër yi nii waaye boo fi amuloon ay bunt buntu kër soowu la féete woon ah, waaw ci wet yi nii mu amuloon ay bunt waaye amuloon ay bunt waaw kon ñu ngay jaajëfal baax a baax di wax ne leeral bi leer na loolu macha allah la ñaanal suñu borom gën la guddal sa fan baax a baax gën a yokk xam-xam bi wëral la guddal sa fan ba lépp la nga xamante ne sa waajur bi nga xamante ne moom nga fi wut ah, lim fi toog nga def lu lu lu kayu njort loolu te eh, eh, sa waajur am ci xel mu dal bu baax a baax ci ni nga fi toogee ak li nga fi sàkku mboolem julli rek suñu borom defal leen ko barki a baax di ne waa Leral TV fi ñëwoon rek doon gëstu ci taarixu nekk bi Sëñ Tuubaa nekkoon fii mm-hmm. njaareem rawat na ci néeg bi nga xamante ne fa la wàcc liggéey mm-hmm. fa la maanaam fa la delloo àjjana mm-hmm. ah, ci ci zaahir kon Euh, dañ ci santaat yàlla baax bañu ñu suñ borom womante ñu ñëw bu fii mm-hmm. ah, di ci gëstu am ci leeral yi mm-hmm. di ñaan lépp ñu ci sàkku yàlla ñu ko suñu borom defal bi jaari ahli man lillah sëriñ bi itam bindoon na wax ne raamu masir yi ilaa njurbel la daa la sasin law xaayanoo sherra maa fi sayri maaraam waaw yi ñu ngi sàkku andi ma njaareem ci 1912 loolu moom moo ko dateel boppam waaye sunu jàkkaarloo woon ak sunu xamoon secret bi may amee njaareem kon duñ ko sàkku mukk ndax fa sayru mawtul alaa man naasahu wa asab mu ne dox bi dafa mel ne dee la ci ñoom ak lor la ci ñoom ak ñàkk lañ doon ut la ci ñoom mu ne man Eh, damay sax njaareem te tedd nga laa fay saxe wa annahu liya ibqaun wa ikram man nag la ma fay am mooy ak sax ak tedd nga kon bi mu agsee njaareem kon ci wetu école bi foofu may wax te mooy résidence bi nga xam ne fa ñu def école euh, nasraan bi mi ngi ci kanam tuuti euh, muy franco arabe bi nekk foofu ci kanam euh, foofee fa sëriñ bi jullee timis nekk na fa fukki weer ak ñett yoo xam ne guddi gu jot sëriñ bi day bàyyi koo foofa jëm si fii xam ngeen diggante boobu lu bari ndox la rawatina ci jamono boobu nga xam ne lépp ndox la ay yoon yu tuuti moo fi nekkoon booba tëli dara amagu fa buy ñëw yàlla dogal na booba am na ndonga loo xam ne mi ngi nekkoon ak moom moo koy gunge ñu koy wax sëriñ Mbàkke Jaxate doomi e, e, sëñ Modou Assa Jaxate la nijaay la ci sëñ Abdou Lahat ak e, sëriñ Saliou nijaay euh, la ci sëriñ Souhaïbou mook seen ndey ak seen baay ñoo bokk lépp mooy seen nijaay lenk moom nag bi mu ñëwee bi bàyyam di ñëw da koo ëndaale fekk muy ndaw sëriñ bi téye mu nekk fi di wettali sëñ bi bu sëñ bi jógee ci résidence ba jëm si ci kër gu mag sëñ Mbàkke nee na maa ko daan ngàbbal satala euh, nee na waaye booba li muy doon doon ndaw te sëriñ bi doon mag su àndeek sëriñ bi ñuy ñëw faaw moom bu dawut du mën a jot sëñ ndax sëñ bi doxinam dafa gaaw nee na suñu doxee tuuti bu ko sëriñ bi jiitoo tuuti day am ay jëmm yu génne ci ndox mi yoo xam ne dañuy gàtt waaye seeni karaw day ak day laal suuf di buubu ñooñu dañu koy dëkk seeni loxo naan ko sëñ Mbàkke Jaxate mbakki Jaxate teeg noo dimbali ñu barkeelu ci satal ak sëriñ Tuubaa waaye nee na moom booba yitteem mooy fexe ba nu mu jote sëñ bi rek nee na ginnaaw gi la door xam ne ñoo ñu sax ay jinne la lañu xam nga sëñ Tuubaa bind na wax ne mbooleem jinne yi nga xam ne Euh, ay jullit lañu ay murit lañ ci moom lañ aju loolu daf ko bind bi a taallaqal la si na aslamu min jinni asri doona man la muslimoon mboolem jinni yi nga xam ne ay murit lañ yépp jébbalu nañ ci man aju nañ ci man waaye nag du ñi doona man lam yuslimo ñi julli ñu dul ay julli nag génne naa leen ci muy jinni yi nga xam ne ay yéefar lañ euh, ne moo tax ab ab ab taalibi nag day bëgg di barkeelu ci sëriñam nee na moo tax ñaari dañ ko daan eh, dékk seeni loxo waaye sëñ Mbàkke nee na damay ngéejoo rek man jot sëñ bi du leen tal sax nee nag bu ma buñ masaan agsi fii sëriñ bi day daal di jubali ci fi ñuy wax kàddu jullikaay xam naa su ngeen ñëwee da ngeen fa àgg kon mooy barab bi mag ci moo mag ci eh, kër gu mag képp mooy fi nuy jullee tey néew nee na sëriñ bi bu agsee foofu lay nekk di naafila di duuf ay jaamu yàlla di def ay ibadaatam ba fajar di jot mu daal di fay jóge jubali ci armée bi Euh, su accès ci armeel yi itam am na euh, daqaar koo xam ne da ngeen ko ngeen fa demee da ngeen ko gis daqaar naar lañ koy wax suñ mbokki naari kajoor yi ñoo fay denc foofa moo njëkk a doon jullikaayu sëriñ bi bu farata fala daan jullee sub bu jullee fajar toog fa ba julli suba buy bëgg a leer mu daal di wàññeeku delluwaat ci résidence loolu sëriñ bi def na ko fukki weer ak ñett ba dugg weeru ñeenteel wa tolloo gàmmu ñeenti fani gàmmu ci la sëriñ Tuubaa sañ ci kër gu mag kër gi itam bi mu sancee fii dem ngeen bayti rasul mooy néeg bi ñuy wooyee néeg bi nga xam ne wax nañ ne fi la ko yonent saa salaam fekkoon euh, loolu itam euh, day day lu yéeme ndax daanaka gisati ko ci àdduna lu jafe la muy néeg boo xam ne dañ naan la yonent saa salaam def na fi fukki fukki fan ak juróom yu kole yoo xam ne taxu ko sëñ bi moo ne bi ma ñëwee kër gu mag ba sanc fi la yont bi ñëw gane si ma gane gane ma ci néeg boobu fukki fan ak juróom ci laa xamee ne fukki at ak juróom laa fiy def ndax fanam bu nekk at laa koy màggal doona ñibbi Tuubaa kon loolu mooy foofu mooy baytil rasul mooy néeg boo xam ne yonent bi saa salaam def na fi fukki fan ak juróom sëriñ bi ñëw euh, dëkk euh, euh, la xamee ne fukki at ak juróom la fiy def wax na sëñ Aliou Sey sëñ Aliou Sey daa ko da ko daan daajal ci mag ñi fi newoon la ne ko yaa Aliyu xuruji min dunya xaama wam sasin ci la ko wax ne ko Eh, wam Wamsachin laay fiy jóge mooy tolloo ak fukki at yeeg juróom ndax yonte bi fekk si na ma fi fukki fan ak juróom bisam bu nekk danaa ko màggale am at danaa fi def fukki at ak juróom loolu eh, bind na ko nga xam ne kon sëriñ bi kon bu ngeen bi eh, ngeen bi ngeen fi jóg gis ngeen itam néeg bi nga xam ne moom la ñuy moom mooy moom la wax baytu xalwati mooy néeg bi mu bàyyi ko bi mu delloo ci boroomam néeg boobu euh, sëriñ bi euh, xam nga tam xarit bi euh, néeg boobu lañ ko mujje gise néeg boobu la deyaale ak boroomam xasida gi nga xam ne mooy xaatimatul munaajaat yi nga xam ne mooy xasida gi mujj taalif ci néeg boobu la ko defee bi ñu ñëwee néeg boobu fi la ñu fekk xasida gi ci dënnam néeg boobu itam fi lañ fi lañ ko waajale ni ñuy waajale nit ku fi bàyyi ko sëñ Mad Lamin Jóob Dagana ak sëñ Abdourahmane Tàndaxi muy naar boobu euh, fi lañ ko waajale ci biir néeg boobu euh, yóbbu ko Tuubaa yonent bi saa salaam euh, bari woon na lool lu ko daan lu mu ko daan tudd ci ñëw gi muy ñëw di ko seet si di ko fekk si waaye nag néeg boobu da ci illa boo xam ne daanaka doy na doy na ci wàllu kéemtaan ak ak karaama walla mujisa ci yont bi saa salaam waaye doon karaama ci sëñ Tuubaa ci fukki fan ak juróom yoo xam ne yont bi saa salaam fekk na ko fi euh, xam nga néeg boobu muy kër gi muy jumaa ji lu ci ne dafa bari ay kéemtaan xam nga bi mu nekkee Gabon nekk Mayomba te moom fu mas a nekk ci biir quartier gi nekk faw lu mu xat-xat dana am jàkk euh, nee na booba effort bépp mooy mën a dem ut ay bant euh, mu dem ci àll bi ut ñeenti bantam diri leen ba indi leen ci biir quartier yi samp leen melal ci jàkk booba jàkkaam ji effort am bépp ñeenti bant la mu defar mu moo moo dem daggali boppam bant ya diri leen wat leen ba indi leen dem ba ci buntu néegam mu samp ko ci biir quartier gi fi mu nekk def ko jàkk di ci julli commandant bi bi mu ñëwee ne waaw ku samp bant yi ñu ne ko sëriñ bee ko def luñ ci jubli ñu ne jàkk mu ne la masjida naa fii jàkk xewu fi sëñ bi dafa bëgg a yàq quartier bi daal di sempi bant yi dem sànni ko fi soldaar si tuuri ndox pour bañ sëñ bi mën a demaat indiwaat bant ndax day daal di am sobe ba mu ko sànnee foofu commandant bi topp ci moom booba ndar-ndar la ñu koy wax yëlli sëñ commandant boobu moo ñëw ne waaw ku simpi sëñ bi commandant bi ne ko man maa ko dindi kooku ay kilifaam mu ne ko waaw loo ci jublu moom yàqut seenewut kenn ci buntu néegam la ko def di ci def ay jaamu yàlla waroo ko woon a dindi mu ne ko dindi naa ko mu ne ko nag danaa danaa fa delloo bant ñu jàppante ci sëñ bi nee na coow nañ ci diggante tisbaar ba takkusaan nit ñaa dox seen diggante sëñ bi nee na ma bàyyi leen foofu daal di bind xasida ak rabbana axrijna min haasihil qaryati salimi ahluha la waj'al lanaa min ladunka waliyyan waj'al lanaa min ladunka nasiiran nee na ci biir coow li moo tax sëñ Mad Lamin Jóob Dagana di wax ne xasida ak radiku murit bi koy durus di ko jàng na ciy ragal ndax xasida gu nekk sëriñ bi bi mu koy waaye xaal bi mu nekk day day def jeexit ci xasida gi mu ne xasida googu dafa mel ni arme boo xam ne da koo sox ba pare soo ko teqee rek bal bi day dal te man naa lool ndax aal bi ko sëñ bi bind ndax booba lañ sempi bantam yi te mooy effort bi man bépp mooy bantam yooyu mu se mu samp ko ngir jaamu yàlla ñu sempi ko ku kumaanaa bii sës ci bu mag bi di ci jàppante ndax tooñ giñ ko tooñ li sëñ bi li dënnam di yaatu muy mën a muñ lépp kee moom yoonam ci waaye dem na ba bëgg a xeex ngir ngir xam sëñ bi li ko bant yi jaral ak lim ci daj ak nii ñu ko def sëñ bi nee na moom man ma bàyyi leen fa dem dog dagg dagg aaya xoola aaya bi lim ko tënki aaya bi mu ko tënki ràbbana axrij naa min haasihi l qaryati saalimi ahluha yow suñu borom génne ma ci dëkk bii nga xam ne ñi dëkk dëkk bi ay tooñkat lan bu sëñ bi tàggook ñoom la bëgg léegi waj'al lanaa min ladunka waliyan yow rek laa bëgg yow sama borom nga féete woo samay mbir bu ma boolee kenn waj'al lanaa min ladunka nasiira yow rek laa bëgg it nga ndimbal yow doo nga ko am na nga ma dimbali ci ñi sëriñ bi tàmbuli xasida gi ci raditu anil mawla xam nga xasida gu tasaaroo la jamono yi mu di jàng koy jàng bu baax waaw ñu ngi koy daaj daaj yu yéeme raditu la mawla taala lasi rabba fuadi wa axnaani wa akrim bihi rabba suñ boroom moo moo moo yar moo tarbiya sama xol ba dara déranger wu raditu anil mawla buur bu màgg boobu nga xam ne euh, taala rabba moo ma doyloo doylool na ma dalal na sama xol ba man lii tax kii di di xeex man mii lañ ko def defuñ ko waaye man yar na sama xol ba dara yëngalu buur bu amul morooma ngoog akrim bihi rabba bi muy bind xasida googu ba àgg ci laam ya ceeg biir yu mujj ya ma nga naan lahu tub salaatan maxsalaamin bi alihi wa ashaabihi wajhal bihi masjidi raaba sun borom bindal dolli ko tedd nga dolli ko wóolu ci salaa salaam waaye nag may ma jàkka ju yaatu may ma jumaa ju yaatu nee na bi mu ko waxee foofu lañ ne ko ustujiba lahu sawfa taraahu nangul dan la ko ta dang ci teg sa na keroog lañ ko wan maquette ju may njëriñ ji wan ko maquette ju may Tuuba ne ko nangul nañ la ko te dang ci teg sa bët moo tax keroog bi jumaa ji bi jumaay njariñ ji noppee eh, ba mu ba mu ko ko ba noppi dafa yàlla suñu borom eh, bu naree amal mbir da koy utal ay sabab yàlla dogal na commandant ba doon jàppante di xeex mu yëlli ngir jumaa ji moom itam jeexal na ba ñibbisi ndar ñibbisi xelam mu xëy xelam ni ci sëñ Tuubaa xelam mépp ni njariñ mu mu mu jël saxaar wàcc fii ci gaar bi ñëw di siyaare si sëriñ bi bi bi bi bi mu agsee daa fekk ñu immigré jumaa ji ba noppi boo xoolee eh, eh, eh, booba gis ci réew mi lu mel ni jumaa njaareem lu jafe la ci bâtiment bu rafet bu yéeme bi mu sëñ bi nee bi mu nuyoo rek la sëñ nee na man la sëñ bi woolu boole maa ngi moom sëñ Mat Lamin jóg ne ko àndal ak yelli mii mu dem xool jumaa ji visité ko ndax moom moo fekke woon la xewoon fële yàlla dogal na fekk siwaat na lii te moo ci bëggoon a xeex kon wax ko ne ko na dem seet sëñ Mat Lamin nee na maa ànd ak yelli ñu dem ñu visité jumaa ji lépp ba mu daj nee bi ñu ñëwee ba ma delloo caabi ji sëñ bi sëñ bi ne ko waaw eh, yéen li gis nga jumaa ji mu ne mu ne ko waaw mbaj moom day liggéey bi yéeme na lool di xalaat ci architecte beeg ak ni ñu ko liggéeyee xam nga sëñ Issa Diène moo doon taxawu liggéey bi moo ko yoroon ak liggéey eh, ak ak ak jumaa jeeg rafetaay bi sëñ bi ne ko waaw lii nu mu demee keroog yaa kumaanaama ba ngeen doon jàppante di xeex sa ba ngay bëgg a jàppante kumaanaa bi ba nit ñi di dox seen diggante loola ak lii nu ñu demee yéeli daanu ne sëñ bi lee ay bant rek la woon laa munaasabata baynahuma loolu kenn du leen comparé sëñ ma Lamin nee na sëñ Tuubaa damaa wooluwaat ne ma demal indil ma xay xasida ak ay yasami nii laa way ndaje woon am na ci bayit woo xam ne tey laa leen koy mën a leeral nee na bi yegsee sëñ bi teg baaraamam ca siinu muhmala ga inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan siin googee la sëñ bi teg baaraamam ndax inna xibaar yi lay sa lakk alim sultaan lu tënk xasida googu muy sinu muhmala gi mooy siin bu wow mooy saaxali xayrilaahu fii maa yon baa maa saa axal bi yow wa alal jëm mooy lu mu bëgg a wax foofu lu muy junj foofu mooy sunu boroom defal na ma ci maa yomba faral na ma la ma naqare woon ci sama xol maa saa axal bi sëñ bi ne leen maasa aqal biega mooy sama bante yañ sempi woon di sànni wa ahlal janbaa gii nag mooy yëkkati na sama wàll mu ne ko mooy sama soroor yi nga xam ne tey jóg nañu te dootuñu daanu te kenn du leen buddi leen buddi moom waaw nga xam ne kon euh, loolu sun borom war na ko sëñ Tuubaa lu yàgg ñëw gi njaarim itam gis nga ne wax naa ci bayit yi ne secret yi mu tudd wax naa ci lenn ci njabootam yi fi feeñ Eh, waaye wax naa ci bayti rasul muy ndekee barab la boo xam ne soppeem bi nga xam ne wax na ne moom dem siyaare ko fekk ko ma madinatu munawwara wala jóg teg tànkam ci ma madina sëñ Tuubaa bind na ne moo gën moo ko gënal adduna si ñu sol ko or ak jamaa ba mu daj asama nee na mu teg tànkam ci ma diina rek moo ko ko gënal te loola dara waralu ko lu du yont bi saa sal nee na yont bi turam rek moo am muhammadul sikru unsi nee na turam rek da koy wétti nee na barab bu lum nuru nuru lu wéet turu yonent bi saa sallam li yéeg mi ngi koy dégg rek barab ba day wéetali ko ci moom sikru si wa mafraati wa nooru xalbi wa ahdayi wa raaxaati kon yonent bi moom mooy léppam nee na loo gis mu koy ut rek yonent bi la ci xemm nabiyuna al mustafa xayrul wara xanat yi fi kulli sayin wa maa yabahu aba yonent bi mooy xemmam téefam ci lépp kon nag yonent boobu nga xam ne bëggul lu dul moom mooy xemmam téefam fii la amee yonte bi saa sallam moom yonent boobu nag ñëw gane ko fukki fan ak juróom yu tegaloo moo tax loolu njaareem day lu particulier ci njaareem loo xam ne kenn fekk ko mooy da nga fi man dañ la fi mën a won néeg boo xam ne dañ naan la yonent bi saa sallam def na fukki fukki fan ak juróom waaw ndax loolu sax fi mu ne nii boo doon xool barab yooyee mu dëkke woon ndax amati na am na fa naam waaye ndax raafut ndax xamati nañ xanaa nga dem ca raw doom bee mu tëdd tey ndax néeg sayyidatuna Aïcha la woon fee mu tëdd néeg sayyidatuna Aïcha la woon néeg boobee fa la wàcceb liggéey waaye loole boo génnu dem ci réewi Hijaas yi ci suñ bawal gii ñu wan la fi barab bu yonent bi saa sallam def fukki fan ak juróom loolu karaama mënu koo yëg gën a yéeme ak jagle mënu koo gën a yéeme moo tax moom dafa wax ne yonent bi saa sallam moog yonent bi ñoo bokk ak bëgg ñoo bokk ak bañ nabiyunal Mustafa xayrul wara xaras yi fii kulli shay'in am na ci biir kees goo xam ne dañ koy wooye keesu jinni yi waxoon naa ci njëlbeen waxtaan ne jinni yi jébbalu yëpp ay murit la kees googu amoon na fukki ndaa eh, eh, amoon na ñetti téeméeri ndaa ak fukk ak ñett jëysul moo tolloog li mu ñetti téeméeri ndaa ak fukki ndaa ak ñetti ndaa ñoo newoon ci néeg boobu waaye néeg boobu mës kër kees googu mës ta néeg dara am newu fa woon ay ndaa rek ñoo fa ne newoon ndaa yooyu itam am na murit yoo xam ne doon doonoon seen liggéey mooy di leen duy suñ leen duyee tey ñetti téeméeri ndaa yeeg fukk ak ñett yëpp buñ leen duyee ci bëccëg bi bu bët setee bu ñu xëyee benn ndaa benn ndox du ci ne dañuy fekk ñetti téeméeri ndaa ak ñett yëpp jeex tàkk ñu duyaat benn bis am kilifa goo xam ne xam naa turam xam naa santam la dul ci teggin nga koy tudd ci nga koy tudd ci nettali bu demee noonu da caa jël doon ca barkeelu naan ci lenn ndaa eh, ndaa yëpp dara laalu ko bis moom sëñ bi mu ñëwee xool ko gis ne ndaa yi dara laalu ko daa laaj ndax daa am ku ko jëfandikoo ku ci jëfandiku ci yéen kooka door a présenté xam ne ne moo ci doon barkeel sëñ bi ne ko bu leen ko defati ndax ñoo ñu ñoo bokk ak yéen aw des duñ laal lu ngeen laal ñu koy jëfandikoo ne nañu sotti ndox yëpp raxasaat yëpp duyaat bañ ko duyaatee muy melaat nam daan mel buñ xëyee fekk lépp jaar kon loolu kees googu ndaa yooyu ne woon la ñuy woy keesu jinne yi ndax sëñ bi sëñ Ibra Joob Masar ma ko doon tagg dane yaa xillu kam saara xaasal baabi min malaki su nuuni moo wax loolu wa min washirin wa min jinnin wa min malaki yow xarit bi ñi nekk ci buntu sëñ Tuubaa bii ci ay buuri adduna ay ministère ay jaraaf waaye ay malaak waaye ay jinne buntub sëñ Tuubaa la mbooloo mu mel noonu di daje mbooloo yu bukk bukk ay xeet yaa xellu kam saara xaasal baabi min malaki wa min wasiirin wa min jinnin wa min malak kon buntub sëriñ bi yëpp fa newoon kon suñ doonee tënk taarixu njaarim daal yaakaar naa danañ danañ danañ danañ taxaw ci loolu ñoo leen di jaajëfal bu baax di rafetlu bu baax itam seen seen seen seen télé bi ndax maa ngi fàttaliku am na gàmmu gu ngeen fi ñëwee woon loo xam ne jëloon ngeen ci lu yaatu loo xam ne lu amal njëriñ ñu bari lañ gis nañ ñun ñaa ngi koy top kon nag noo ngi ñaan suñu borom def ci barke ci barke sëriñ bi ñoo ngi ndokkeel muriti sëñ Tuubaa yëpp ci màggal gi di ñaan ñëpp dem ak jàmm